Dakar mbokk internet yu Feeling Dakar TV tey nag dañu am benn gan bu yànj boo xamante ne c'est un de Saint-Louis mu tudd Adams Sène Adams Sène tey dañuy dalal fii ci Feeling Dakar ñu bàyyi ko mu nuyu suñu mbokk internet yi ñuy seetaan. salaamaaleykum Amina. salaamaaleykum waa Feeling Dakar ak euh, bépp internet bi ñuy seetaan c' est encore un plaisir d' être parce que mosoon naa fi ñëw bu yàggul dara. Mhm. donc mën naa wax ne kër gi sama kër la. Mhm. Mm. mais bëggoon nañ xam ne Adams lan moo ko dugal ci musique ah passion rek parce que mën naa wax ne suñu kër kenn woyu fa mm-hmm. donc voilà d'habitude Sénégal dañuy jàpp ne woykat yi dañu war a jóge forcément euh, d'une famille euh, griotte mm mais man oh, c'est tout le contraire donc ma tëba tëb rek ne voilà man musique laa bëgg ba ma nekkee xale ba léegi ma doon woyantu voilà exactement dem ba après di dem école xam nga di dem di woy si ouverture mm-hmm. yooyu xam nga mais mënaguma woon lancé wu carrément comme ni ma koy waxee toujours en quelle année. yàgg na parce que déjà bi ma nekk primaire laa commencé di di di woy suñu école mais je savais pas que j'avais une belle voix dama doon woy nii rek. parce que voilà on, on de chanter. Mm-hmm. léegi maa ngi njëkk am sama sama premier prix en chanson ba may def CE2. Mm-hmm. voilà je pense neuf ans xaw ma <laughs> huit ans. Mm-hmm. léegi après ñu ñu ñu ne maa gagné mais xamaguma ko woon léegi ma dem ba ba may def quatrième. laa njëkk def plateau comme ouverture du foyer ak affaire yooyu. Mhm. je n'osais pas trop loolu yëpp c'était à Saint-Louis. c'était à Saint-Louis bien sûr okay. donc si ñi ma bokkal génération yëpp ku dégg Adam Sène. da nga ko xam parce que école yëpp maanaam sama sama collège. Euh, lycée technique André Pétavant mhm. ma fa daan wéy yeneen école yëpp tamit di ma invité ba ma demee ba nekk lycée fédéral aussi muy euh, lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall man man ma fa daan animé dem ba université aussi di continuer di def loolu mais par rapport ak musique bi noonu mhm. nga teel ci dugg mhm. di wayantu dans les foyers les écoles amul woon benn kii si sa jàng non absolument parce que j'ai toujours fait partie des meilleurs <laughs> donc voilà j'avais pas le choix doomu enseignant laa jàng la ñu santoon fallait que je fasse ça d'accord mais par rapport loolu bi nga duggee noonu ci musique bi. Mhm. parents yi nan lañ ko jëlee woon jàng bi la ñu gënoon privilégié. ah waaw <laughs> c'est évident parce que ñoom mosuñu d'accord sax surtout sama papa mosuñu d'accord pour ma woy et euh, voilà euh, sama yaay moom bi ma demee ba màgg après nag papa moo daa nekk sama complice <laughs> comme ni ma ko waxee woon tawee. di ma jàppale di ma jàppale di ma nëbbal affaire mm-hmm. yooyu donc damay dem daw fenn woy mu woo ma gaaw gaaw balaa papa ñëw après ma ma gaawante ñibbi si voilà. Mm-hmm. léegi bi ma demee ba màgg ba jeexal samay samay études. Mm-hmm. dem jàngale ci nekk jàngalekat. nekk prof d'espagnol. donc woy ba pare après là je me suis rendu compte que voilà woy laa bëgg réellement. ma ne moom laay def après voilà ma. ma ñëw wax ak ñoom d' accord ñu woon sax parce que demoon naa ba démissionné yooyu yëpp boole na ma ak ñëpp si àdduna bi. Mhm. <laughs> mais euh, ma dëgër bopp rek après ma ne moom laa bëgg bi mu demee nag gis ne ma koy def ñi di apprécier même ses propres amis di dugg si réseaux sociaux yi di apprécier après mu ne ah, xam naa di séduire sérieux donc naa ko bàyyi mu dem. naa ko bàyyi mu dem léegi mën nañu wax ne Adam si ngi jàngale ba léegi wala da nga bàyyi jàngale bi carrément. pour gérer sa carrière alors pas dire que dama bàyyi jàngale carrément parce que soo nekkee jàngale moom jàngalekat jàngalekat ngay nekk ba faw donc arrêté naa mars 2019. Mhm. léegi pour jox chance musique bi parce que musique ak jàngale yëpp dañu fiir. dañu fiir voilà jàngale bi déjà ba ma ñëwee euh, Dakar génnee euh, mooy cover Despacito bi ça avait marché. Mhm. affaire bi décollé ñu ma invité fu nekk après si la dugaat si privé bi fii di jàngale Dakar. mu ralentir sama carrière carrément parce que mënu ma ko boole ak musique bi donc voilà mënuñu ànd léegi ma jël benn décision ma ne comme musique bi laa bëgg voilà naa naa jàngale bi tuuti concentré aussi musique bi ba affaire yi pour man carrément su ma mhm. demee nag ba mhm. ba jeex nag ma delluwaat ci jàngale bi <laughs> ah, <laughs> <laughs> mais par rapport ak loolu depuis mhm. que nga arrêté jàngale bi nekk ci musique bi carrément naka nga gisee évolution sa carrière bah ça va je me fais connaître de mieux en mieux de plus en plus euh, mais quand même c'est difficile surtout soo nekkee Saint-Louisienne. nga mhm. <laughs> ñëw bëgg a imposer au Dakar. Dakar te fekk boo ko si benn réseau amoo ay copinage fii wala fee. c'est très difficile donc euh, comme ni ma koy waxee chaque fois aw ma woon euh, label ni producteur donc maa mos a def autoproduction li ma li ma jot a génne yëpp maa ko defal sama bopp parfois sama mbokk yeeg sama xarit yi jàppale ma ni. xam nga c'est du tout pas du tout évident. donc euh, ma nekk noonu ba ba fi ma toll nii ba j'espère que dina gën a kii rek dina dina a baax. kon instant bi mën nañu wax ne mën nañu xaar album Adams. mais bien fii ak fin d'année dinaa génne album. Mm. mais c'est tellement dur mm-hmm. euh, euh, mm-hmm. li ma mësoon ñaan mi ngi am. Mm-hmm. maa sur le point de signer dans un label. bu nekk France léegi man maa leen nar a Sénégal dañu nar a ñëw Sénégal ubbi fi label mhm. pour mën a voilà wutaale yeneen ay jeunes artistes yi nga xam ne voilà bëgg nañu si si musique bi d'accord mhm. donc instant bi ay single rek lay génne single laa génne depuis 2017 mhm. depuis octobre 2017 nii ni maa ngi si sama sixième je pense mooy bi ma mujjee génne muy euh, Love Me donc voilà ñu gis euh, générique belle-mère bi mm-hmm. daw ci télé bi. Mm-hmm. que Adams moo ko way mu nekk chanson boo xamante ne dafa daal. Mm-hmm. Adams lan moo koy inspiré buy bind ay chanson bu lu mu génnee rek day cartonné. <laughs> alors boobu déjà euh, waa production belle-mère ñoo ñëw seet ma pour ma defal leen ko ne mën nañ ci sentir que voilà il venait de commencer. Euh, <laughs> amuñu woon dara man tamit ma nekk <laughs> artiste bi soog a commencé awma dara. ngeen war a jàppalante ñu war a jàppalante exactement c'est ça donc on mhm. savait même pas que la série allait avoir ce succès là. Mhm. léegi ma accepté léegi ñu ñëw wan ma scénario bi wan ma kii bi teaser bi et je suis sénégalaise. Mhm. donc xam naa société bi ni muy doxee. ni muy doxee sëy yeeg góor yeeg yooyu donc je me suis juste euh, inspirée de ça. après voilà si la bind son bi ci yow yaa bind texte bi ma bind texte bi waaw. Mhm. ok au lieu may nekk di xas goro yi wala yooyu donc j'ai voulu euh, ma jaar leen par les par les sentiments. donc on peut dire que Adams est marié ou célibataire. oui je suis mariée. macha allah je suis mariée mhm. donc sa euh, vie de couple nan nga ko gérer ak musique bi. bah déjà mon mari c'est mon premier fan. Mhm. <laughs> donc voilà ma may xam fekk na. maa ah, ngi si maa ngi si affaire yi il m'a toujours soutenu donc voilà. y a pas de souci ça se passe naturellement donc euh, musuma ñëw di. jaay match wala bu baax may jàppale bien sûr voilà même financièrement aussi daf may jàppale parce que loolu moom du baax moom moo tax ma osé sax voilà arrêter sinon voilà j'allais j'allais continuer l'enseignement. waaw dégg ngeen internautes yi Adams li mu wax foofu. par mm-hmm. rapport ak ménage am ak mm-hmm. euh, carrière am. donc jëkkëram mi ngi koy jàppale bu baax ñu koy nuyu de passage. Mm-hmm. donc actuellement Adamson nan nga gisee musique sénégalaise fu toll. Mm-hmm. parce que fan yi da gis chaque jour xale yi ñu ngi fël. Mm-hmm. génération bu bees bi di génnee single yu toj. absolument naka nga gisee ensemble musique sénégalaise. ba dama si réjouir parce que am na ay temps si gannaaw dafa mel ni dafa dee woon. Mhm. voilà mais récemment bi ñëpp bi ak euh, l' avènement de l' internet. Mhm. léegi ñëpp xam nañ ne mënatu soxlaatu ñuy xaar ay producteurs. donc mën nga demal sa bopp mën nga def sa vidéo dugal am sa chaîne bopp YouTube Instagram Facebook dugal affaire yi marché macha allah léegi je trouve juste que ça manque un peu d' organisation peut être. Mhm. pour que ñu mën a def comme yeneen pays africains yi ou même les les pays occidentaux et tout. Donc, donc suñ gënee organiser affaire yi pour man voilà Sénégal mën a bokk si pays gën a kawe en matière de musique. donc Adams moom am na chaîne YouTube boo xamante ne ku fa dugg rek. di nga mën a mais bien sûr bien sûr sama single yëpp ñu fa Adam Sène soo demee Adam A A comme Sène Sérère. di mhm. gis sama sama sama chaîne. mais Adams dégg nañu loolu par rapport ak actuellement xam nga ñu ngi ci mois de mars. Mhm. mois de mars nekk weeru jigéen ñi. Mhm. donc ñun mën nañ ne ba. 30 mars. Mhm. le 31 dañuy sargal. Mhm. naka ngay mois de mars bi. Euh, ak lakk ngay ñaax xam nga euh, ñu bëri dañuy jàpp ne euh, mars genre surtout 8 mars que c'est la fête des femmes. Mhm. alors que du loolu 8 mars benn genre dañuy fàttaliku la lutte que les femmes euh, ont menée. voilà parce que c'est une fête on va dire c'est une journée féministe. donc jigéen ñi yàgg koy xeex pour que ñu mën reconnaître seen ay droits. mën leen yemale ak ay góor yi si anam yu bëri comme si ay salaire donc voilà Euh, lu loo xam ne dañuy ñëw pour war ñun ñëpp nekk di fête c'est vrai que jaar naa si et tout parce que mm-hmm. jàngale naa kii su jotee ñun ñëpp ñu niroole fekk ci <laughs> affaire yooyu mais c'est pas que ça donc dañu war a gën a ñaax jigéen ñi ñu gën a gëm seen bopp mm-hmm. gën a entreprendre des choses pour ne pas on va dire euh, def comme bu njëkkam li ñu doon def ñëw rek ne voilà j'ai pas besoin d'avoir d'ambition parce que je suis une femme je vais me marier mm-hmm. après mon mari va voilà avoir des enfants voilà on peut on peut on peut être marié avoir des enfants et avoir aussi une activité professionnelle bi xam ne dina la permettre voilà génn si et pourquoi pas ngay dem bay entreprendre bay euh, jàppale sa yeneen moromu jigéen donc si mois de mars bi yu mel noonu la war a jigéen ñi euh, jigéen ñi war a gën a xalaat donc mm-hmm. xool na la ñuy def bay euh, améliorer seen ay conditions voilà de vie donc pour le 8 mars Adams est-ce que am na si événement bu mu war a dem tëggi fa dee waaw waaw waaw incha allah le le 8 mars invité nañ ma Sébikotane mm-hmm. samay xarit yu nekk foofu pour benn GIE asiatique boo xam ne day financer ay mm-hmm. femmes yu am projet yu nekk si commune boobu léegi man ak samay mbokk artistes wax nañ dem pour bokk si voilà animation beeg. affaire parce que naa ci suuf ñu may naan Adam si séeréer la. <laughs> waaw séeréer parce bi bi ma ko déggee gis la ma ne mais séeréer bu nice amul fenn. looloo ma jaaxal <laughs> eh, a nice di eh, loo yaakaar. déjà man euh, Saint-Louis laa juddoo fa laa màggee. Mhm. donc nekk woon si milieu séeréer bi ma commencé jàngale. si mhm. lañ ma affecté ay Ngoye Ndofa Ngor après ma jóge fa dem Tataguine mais les plus belles femmes. du Sénégal man fa laa leen gisee honnêtement. Hmm. damay nekk di jàngal élèves da nga bëgg a wax daal séeréer yi ñoo ko dàq mais xam nga Sénégal dañu yëpp hmm. uh-huh. di ko jàngal di ko xool bay tiit en tant que jigéen may xool sama magum jigéen tellement dañuy rafet ma ne waaw ñu am teint noir bu grave seen bëñ yi weex tàll ma ne lii ak bët yi tamit macha allah <laughs> donc voilà je suis pas d' accord suñu naan séeréer yi dañu ñaaw parfois ma gis réseaux sociaux yi ñu ñu tooñ mais c' est pas yi dañoo rafet bu bëgg mais Arams a séeréer Euh, ondik rek ondik nanim tous euh, mais ondik ondik ondik léegi au fait Adams ñu ngi dem au terme de l'émission léegi moo woon xam lan nga ñuy euh, wax ci sa carrière musicale lan nga ñuy waajal loo xamante ne mhm. peut-être d'ici album bi di génn 2021 mhm. dafa xaw a xëcc tuuti dinañ xaaraat beneen single waaw bien sûr des trucs waaw fii ak incha allah fin mars war naa génn benn single am na bu ma prévoir aussi pour euh, été bi juin ou juillet. Mhm. incha allah mais avant loolu yëpp dama am benn événement mu nekk mu nekk sama premier show à Saint-Louis chez moi. Mhm. le 28 mars. donc maa ngi invité waa Saint-Louis yëpp ñu ñëw teewee ko ce sera à la Louise ex Mayas club. bi mhm. nekk euh, si route de Xor bi. donc ngeen ñëw jàppale seen seen seen doom. voilà seen mag seen rakk et tout donc voilà Saint-Louis am na événement donc bàyyiwuma kenn. Euh, sponsors yi aussi fekkee yéen a ngi may dégg na ngeen ñëw jàpp si parce que affaire yi <laughs> waaw c'est pas évident moom boo amee sponsor defe naa yëf yi ci lay xaw a gën a exactement c'est léegi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokk mm, mbokk internet voilà maa ngi maa ngi euh, tàggatoo ñëpp te di leen wax ngeen gën ma suivre ngeen dem sama sama chaîne euh, YouTube Adam Sène dem aussi sama Instagram ngeen abonné wu Adam Sène aussi Facebook et tout donc voilà euh, te di leen wax tamit ngeen di gën a suivre Feeling Dakar waaw Adams ñu lay jëfal bu baax mbokk internet yi. Mm-hmm. tey dañu ñëwoon seet si Adam Sène gis ngeen waxtaan bu neex bi mu defal ni il a été très gentil accueillir ñu macha allah ñu koy remercier bu baax a baax. tey nag damay gëm gërëm suma partenaire yu ñaawlu yooyu nga xamante ne heure bu ma amee combat ñu ne ma Amina demal nga def ba mu nice tey Koki Création moo jaar ci robe bu yanj bi produit collage ni ko bëgg rek da ngay dem Liberté 5 di nga fa fekk bu ci Baye Tola di remercier Assane sama caméraman bu ñaawul boobu di leen jox di daje ak beneen émission sur Feeling Dakar TV. Feeling Dakar,